allo allo asalaamaaleykum maa ngi siyaar kenn di siyaar from Istanbul Turquie c'est Ouzin Daouda di bëgg waa Medina télé bi ci jamono naa ko noonu tudd MTV MTV Medina ñu ñëw ci biir waa famille Daouda Paradise MTV Medina bëggam naa sama gars yi jàmm rek li yëpp yëpp lii mooy